ñu gis itam ci sa biir wax sànq yaa ngi ko wax du du ñàkk naam ay accident di am ci seen wàllu liggéey ci biir bateau ci biir géej gi alors ñu gis jamono ji ñu weesu ci ay bis rek lu euh, ñu génn euh, lu toll ci euh, fanweeri bakkan ñàkk nañ fanweeri bakkan nit ñàkk nañ seen bakkan ci tali bi ci ay effondrement batiment ay accident yu doy waar yéen ngeen bokk ci ñoo xam ni dañ leen xam ngeen di yëngu ci wàllu ñaan bu ñu ko waxee en généralisé tey lan moo waral accident yooyu noonu ak lan la ñuy def pour prévenir ko. xamoo dëgg moom mënta rombi nopp parce que ba ñuy nekk ci réew mi nit ñi jóg di tëggi bool ñëpp jóg taxaw ne tëggi bool baaxul yii lañ ci gisoon ba maanaam tëgg bool tëgg bool am na ay jamono gis nañ fi jeunes yu bari jóg am seeni kilifa yu jénn wax ñoom ñu àndali seen kilifa yi wax jël ay bool di tàccu ci réew mi mooy mooy concert de bi Ousmane Sonko woote woon ngay def méngaleeg loolu non man du man Ousmane sonkoo dama naan dajjal dajjal dama naan dajjal moo woote. li ngay wax rëy na de sëñ bi dajjal rëy na de. Cheikhu dajjal laay wax parce que nu ma wax Ousmane Sonko parce que man lépp lu may wax rek damay wax ci digg bi. Mhm. mu jaar ci digg bi. parce que am na loo xamante ne bu amee ci réew. ëllëg réew mi war a mën a mujj say loxo ci lii nga xalaat. Mhm. kon yaakaar naa lépp luñ ciy def na doon jikko yu rafet. parce que Sénégal nag ñoo ngi bëgg perte suñu culture. Mhm. ñun lébu dañ doon wax. na doom déggal na rakk déggal mag doom déggal bàyyi. Mm-hmm. mais tey réew mi boo ko toppee ak rajo sociaux yi. Mm-hmm. chaque jour boo ko jàppee dangay ngay rus ay saaga ndey ngay dégg ay lu kenn xamul. Mm-hmm. te jukko ji dafa war a jóge foofu. kenn ku nekk mën nga ànd ak ku la neex. kenn ku nekk mën nga fal ku la neex. kenn ku nekk am nga droit def lu la neex. mais li maam ñu doon bañ démb nañ ko respecté ba tey. Mm-hmm. man nangu naa kenn ku nekk def sa politique ni ñu ko war a defee mm-hmm. kenn ku nekk woote sa woote ni ñu ko war a defee te tamit état nangul la ko ni ñu ko war a nangaloo mais nag waroo jël ay mbir yoo xamante ni teg ko fi ba ëllëg am ay gàllankoor yu ñëw ci réew mi nga bëgg dégager say responsabilité yow daal da jàpp ni euh, maanaam tëgg bool yi tëgg weñ yi ñu woote woon euh, ci jamono yi weesu moo waral euh, réew mi xaw a doy waar ci wàllu accident. si wàllu accident parce que tëgg yi bool wàccee wàccee ay kaamil moo ko gën. ñaan ci réew mi moo ko gën. mais sorte de manifestation la pour euh, wane seen naqar ci diggante seen diggante ak président de la de la république. naqar nit wane na lu nekk wane nañ fi naqar ay doomu jàmbur yu bari dee bu doon sott la boo xamante ni dañ koy def rek nit ku ne taxaw wane sa naqar ci tëggi bool ak i tàccu kon ñi si jiitu duñu dee lu tax njëkkewuñu ko dem ba ci biir ñu indi ko man dama gëm benn mbir. Mm-hmm. ñun sénégalais yi. kenn ku ci nekk nañu gëm quatre électeurs mooy fal quatre électeurs mooy folli képp ku ànd ak nit. Mm-hmm. élection jotee demal nga jël sa carte nga dugal ko fu la neex. Mm-hmm. nga ànd ak ku la neex kenn terew la ko kenn ku nekk am nga droit ànd ak ku la neex te kenn warul tànnal ci réew mi koy koy àndal parce que loolu mooy démocratie si ma yaakaare. Mm-hmm. mais tey nag bu ñu demee ba dëkk bi toll foo xamante ni tamante dëmm moo fi nekk. saagante ndey moo fi nekk waxante lu ñaaw moo fi nekk ban Sénégal lañ jëm dama mës a dégg Ablaye Wade wax benn wax ju am solo. mooy président. Mhm. mu ne wan ma say ndaw ma wax la say mag ëllëg. ndaw yi tey ñooy déterminer mag yi ëllëg. waaw est ndaw ñii nga gis ci tali bi ñuy reyante di sànnante xeer est-ce que sa xel demul ci Afrique du Sud. dem na ci apartheid sa xel demul ci riche. Mhm. est-ce que Sénégal ñaan nañu mag ñu baax ñu fi tëdd. ëllëg xel yi dugg ci riche wala xel yi dem ci fenn wala ni affaire bi doon affaire de rébellion ku àndul ak man ma rey la Sénégal dafa dépasé foofu kenn ku nekk bu dee da nga war a falu yàlla sunu borom moo lay fal. Mhm. soo warul falu yàlla sunu borom mooy tax doo falu kenn ku nekk daal nañ la respecter lii nga lii nga bëgg te réew mi càtt yi fi maam yi bàyyi woon. Mhm. ñun de ba ñuy dem géej dañu doon wax gerte caaf warul dugg ci gaal bi gerte caaf. waaw dañ doon wax sa dàll warul dugg ci gaal gi. Mm. dañ doon wax kaani warul dugg ci gaal gi. di ñu tere ay mbir yu bari mbir yooyu bañ ko commencé jël di ko dugalaat ci gaal yi. Mm-hmm. dañu gis accident yi dañu bari ci géej. Mm-hmm. parce que réew mi nit ak jinne ñoo fi dëkk ak rab. Mm-hmm. nañu fàttaliku loolu. lëg daawur mooy sa maam. <laughs> lëg daawur mooy sunu maam. mooy sunu maam. alors euh, xaj na du ñàkk ay sarax yoo xam bu ñu ko defee euh, choc yi ak accident yi dina wàññeeku naam yaa ngi koy wax sànq ni euh, concert de casserole yi doon de tuddee turu Ousmane Sonko sax nee nga mm, mm. Cheikhu Dajjal nga ko tuddee. waaw ma tur man du ma tudd tur faralu ma tudd tur. Mm-hmm. mais yii am yëfi Dajjal la. lan mooy solution bi. luy solution bi mooy nañu delluwaat li mag ñi daan def toog ñaan yàlla. Mm-hmm. delloo loxo yi ci yàlla lu am yàlla lu ñàkk yàlla la mhm. loolu la ñu xamoon sunu mag ñu baax ñi xeex nañu ba xëy sàngoo suuf ju lu baax rek lañ leen xame ak wax dëgg mhm. ak bañ a jaxase benn doomu aadama mais tey senegal yàqante der bi bari na jaxase bi bari na réew mun naa feq bari réew moom mënut jëm ci kanam mhm. bul sax sonal sa bopp ay ay musiba ki balaa rek moo fi am. Mm-hmm. taw xéewal la daan doom bu njëkk. Mm-hmm. bu taw ñëwee ba suñu dëkk di def ay musiba kon war nañu xoolaat suñu bopp. dañ daan ñaan di baaw a naan maam yàlla may ñu ndox ndax ñu walangaan. Mm-hmm. loolu lañ daan ñaan yàlla. léegi dañuy ñaan yàlla mu bañ a taw ndax musiba war a bañ a am est loolu ci ci xel la tegu. déedéet rafetul moom. nañu delluwaat aada ak cosaan delluwaat ci ñaanaat yàlla. te déglu suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi mm-hmm. te xam ne réew mi képp ku fi indi jàmm daa ko fi fekk ku fi indi safaan tamit daa ko fi fekk mm-hmm. <laughs> alors yaa ngi koy wax sànq ndax euh, naruma fa woon a sax jaare waaye ci lay jaare ñu euh, waxtaan ci euh, li nga xamee ni mooy procès Adji saar ak Ousmane Sonko ñi ngi laam-laamee ndax di d'ici mois docteur wala balaa at mee jeex dañ leen woowaat ndax amoo yaakaar ni rek buñ bu ñu woowaatee yëngataat dossier boobu li nga xam ne amoon na mois de mars du amaat ci réewum Sénégal xam nga yàlla moom moom moo xam ay mbiram di ko dogal mhm. mbiru Adji Sarr mbiru Adji Sarr la xamoo ñaari mag tëju seen néeg def li ñuy def man jaraaf bu ma fi bëggee toog naan am nag amul damay nekk naa féq te man ci dëgg rek lañ ma yar te ci mm-hmm. dëgg laa fas yéenee dee mm-hmm. ñoo ngi ñaan yàlla justice def liggéeyam ci anam bu gën a rafet bu dee Adji Sarr moo tooñ nañu teg Adji Sarr ci yoon bu dee Ousmane Sonko moo tooñ nañ ko teg ci yoon parce que dëkk bi ci yoon rek la mën a doxee man ñaanuma yàlla ñuy yóbbu kenn ci yoon ay nit topp ci ba ay bakken du ci lor. mais justement dañu ragaloon ni rek euh, ñi li ñu ragaloon moo di li nga xam ne defoon nañ ko Karim Wade def ko Khalifa Sall muy fexe ba xañ leen seeni i droit d' être a à la présidentielle euh, loolu lañu jàppoon moo taxoon ñu woo askan wi ñu génn euh, ak xeeb gu ñu xeeb justice li muy dogal. Mhm. ñàkk doyloo justice. Mhm. ku jigéen ki lan nga xalaat ci moom ay waajuram ak mbokkam bu doon sa place non man man jugé wu ma parce que man <laughs> man euh, gëm naa li Adji Sarr wax gëm naa li Ousmane Sonko wax yaa ngi ko wax sànq bi ñuy def yàlla moo xam mais justement ci fond bi li nga xam ni moo waral coow ji ba mu génn ba ay nit ñàkk seen bakkan loolu laa wax waaw ah, lu tax nga bëggal ma ko jugé loo ma non non jugé ma la jugé loo ma ñoom ñu def li ñuy def ba pare kenn ku ne ni diw yaa ma def lii kii ne mhm. la lii mhm. mais li may wax mooy euh, bakkan yi nga xam ne moo ci mhm. woote boobu ñu woote woon ndax jàppoon yi loolu mën naa amat ci dossier bi. non bu amaatee képp ku jël sa bakken di ko saraxe da ngay dellu si tali bi nga deewaat rek ñu def comme ni ñu defoon rek jàmm juróom-ñaari lixlaas faate yax fa la xeex naa si ëf la rek boole la suuf si rek dugal la ci biir say mbokk jooy une semaine bugaan ñëw ñëw jaale. Ousmane ñëw jaale Macky Sall ñëw jaale Jaraaf ñëw jaale loolu rek a xew ci réew mi. Mm-hmm. leneen lan nga bëgg xew ci réew mi. déggoo mën a réew mi fii Sénégal gii képp ku yaakaar ne am na pexe mu koy yàq yaa nax sa bopp. commencé nga ci état laa la wax bu ci opposition. Mhm. képp ku yaakaar ne dañu xipp suñu bët di la seetaan pour ngay yàq réew bi yaa ngi yaa ngi yaa ngi sa yaa ngi yaa ngi nax sa bopp. Mhm. parce que yaa ngi ci caaxaan bu rëy a rëy mi ay jukkoo ko tëgg te jukko yooyu nañ ko sàmm. mais jikko yi dafa mel ni léegi jikko yaa ngi naax saay. waaw man bu gisee yenn yi ndax dëkk boo xam ni chaque jour cas de viol viol rey nit fay viol rey nit viol rey léegi jikko yooyu lu ko indi. mooñ jax mooy nit ñi dañ yaraat seen njaboot. man boog am naa fulla ak fayda gu day nii sama nopp njaboot nit du ci dugal luy taal dëkk bi parce que fii ma leen di teg fa laa leen di fekk li ma leen di wax moom la ñuy jëf lépp lu ma neexul sama njaboot duñ ko def su ma ne bul dem doo dem dañu toll foo xamante ne kenn ku ci nekk nga jël responsabilité sa njaboot bu dee nag saraxu bëy la bëgg def boppam nga tere mu bañ mu doon bëgg doon saraxu boppam nga bàyyi ko ñu saraxe ko rek après nit ñu jaxal la rek nga dund ci man daal loolu laa xam ci côté boobu. Mhm. na nit ku nekk na nga jël say responsabilité bopp. ba bu ñu wootee dégg naa benn jour soo ko wax mu ne woowuma kenn nag ku si nekk toog sa kër dafay ñaan yàlla yoon def liggéeyam. Mhm. wax dëgg yàlla kenn yéenewu ko dara na yoon def liggéeyam nu mu ko war a defee. mais ñi ñàkk seen bakkan ci événement mars yi. Mhm. ba léegi situé gu responsabilité yi. lan mooy problème bi ba mënuñoo ni ay nit faatu ci ay manifestation mënuñoo fe fexe ba euh, lijjanti lijjanti kii moo rey wala kii rey wala nangam nangam opposition bi naan état bi moo rey état bi naan opposition bi moo rey di ko jiiñ Ousmane Sonko. waaw léegi bu ñu demul justice naka lay mën a leere xam nga man duma taxaw di ko àtte. Mhm. seet man naa ko ci def mais mënu taxaw di est justice rek mooy àtte te man du ma taxaw place justice parce que bëgguma justice taxaw sama place. nañu bàyyi affaire yi ci yoon yoon def liggéeyam ñii dee ba seen waajur di jooy nañu ñaan yàlla yoon feeñal lépp te yàlla sunu borom niital yoon lépp ba lépp mën a antu man affaire u dajjal laa bëggul ci réew mi parce que bëgg naa dajjal wu yàgg ci yeneen réew moom des sunu sunu réew mi mais dafa mel ni sunu réew mi dajjal lañ ciy bëgg rax man daal loolu laa gis. Mm-hmm. ku dem nag ci mbedd bi buñ la reyee. sa morom yi fi nii rek maa ngi doon seetaan ndeysaan benn xale mu ne ci événement yi la ñàkkee bëñam ba léegi amatul bëñ. Mhm. kan moo koy joxe bëñ. bu poosewul la du ko am. kan moo koy poose bu amul doolee poos du ko am moo tax say waajur ñooy sonn yow nga sonn nga sonal sa njaboot kenn ku nekk na nga delloo sa xel léegi nag jeunes yi am nañu fugg boo xamante ni bu ñuy wax danga koy sentir ci ñoom benn haine boo xamante ni te loolu jëmul kër. nit ku nekk na nga wàcceewaat sa bopp. la la ma waral haine boobu nga xam ni bi euh, politiciens yi commencé ba léegi bu ñu waxee da gis nit ñi di saagaante ndey ci euh, euh, ci réseaux sociaux yi boo waxee ci Macky Sall naan war na am nangam nangam ñu saaga la boo waxee ci Ousmane Sonko waru def nangam ñu saaga la loolu c'est compliqué quoi. beneen forme politique laa di Sénégal. muy ban mooy révolutionnaire laa di Sénégal. révolutionnaire ba ci ay saaga. looloo fi ne léegi déjà rek tey moo ngi wax nii. moo ngi wax nii bu jénnee am na ñoo xamante ni mënuñu ànd ak moom lu ci lu mu wax parce que ay complexe la ñu mënuñu toog débattre ko seen seen seen arme bu gën a rey mooy dañuy jénn saaga am yeneen nit ñu nekk seen suuf duñ ko def seen doom nit ñooñ dañuy liggéeyloo ñooñu ñooñu taxaw tamit di saaga mais man xale bu ma saaga ma jéggi la du sa bàyyi loolu garaaw man amul ma dem te ñëw de du ma tontu du ma xulloo du ma xeex waaye dinaa la teg loo xamante ni ba nga juddoo sa ndey ak sa baay ba léegi mosoo gis coono yu mel noonu mën naa fexe ba xam fii nga nekk yebal ay nit rek ñu coppatil ma sa tànk indil ma ma teg la lu la kenn mosut a teg ci àdduna. loolu garaaw na de. ma xeexoo ma dugg ma si problème mu jàmbur mais sunu réew mii di Sénégal. Mm-hmm. li fi maam yi bàyyi nañ ko fi bàyyi. Mm-hmm. d'accord yaa ngi koy wax sànq euh, li fi maam yi bàyyi woon nañ ko fi bàyyi coow.